wax yàlla yonentu sallallahu alayhi wa juróomi yoon la mos a ci jullee lu tax parce que yàlla dafa bëgg buñ juumee mbaa ñu ñu xool lan la yonentu sallallahu alayhi wa sallam defoon ndax moom la ñu pour mu jotal li yàlla bëgg alayhi salaatu wassalaam les plus grandes écoles mooy les quatre grandes écoles am nañu wuute ci nan la ñuy réparer julli gu yàqu suñu yokkee mbaa ñu bu imaam Abu Xanifa mi nga xam ne quatre-vingt gannaaw gàddaay gi la juddu moo mag ci ay ilimaan yi nee na moom sujjóot yëpp gannaaw boo sëlmalee la ndax déjà julli gi am nga loo ci boole lu ca bokkut bu ca boolewaat dara te sëlmaloo bu dee contraire wu imaam Abu Xanifa te mooy imaam Shafii rahmatullah alayhi at mi imaam Abu Xanifa la juddu cent cinquante pour moom sujjóot yëpp dañ ko war a sujjóot qabla salaam bala ñoo sëlmal lu tax parce que nee na julli gi matagut booy jàng dara doo bàyyi ba soo ko jàng danga koy defar ba mu mët nga soog a sëlmal alors ku ma ni imaam Ahmad ibn Hanbal mi judd cent soixante-quatre Seydina imaam Shafii ko magee quatorze ans moom def ne dañuy seet ca njubal yonantu sallallahu alayhi wa sallam lan la defoon su fekkee ne dafa sujjootoon qabla ñu sujjoot qabla su sujjootee baada ñu sujjoot baada su ca deful benn ñu sujjoot qabla par exemple yonentu sallallahu alayhi wa bi mu jógee ci ñaari rakaat taayawut dafa sujjoot qabla bi mu yokkee dégg nga def juróom wala bi mu dégg nga ci ñaari rakaat ñu fàttali ko mu indiwaat la ca topp dafa sujjoot baada bu fekkee defu ca dara maanaam njuumte liñ def gisuñu ko ci jàngaleem yonentu sallallahu alayhi wasallam yi su jot xabla imam malik mi nga xam ne moom mi ngi juddu quatre-vingt-treize gannaaw gàddaay yonentu sallallahu alayhi wasallam imam abu xanifa taa ko magee treize ans ah, moom dafa différencier wala dafa faram-fàcce dafa détaillé dafa détaillé te lim def nag incha allah taala moo gën a make sense en tout cas pour ñun donte ñoom ñëpp njubal yonentu alayhi salaatu wassalaam la ñuy xeeñju moom dafa ne dañuy xool yonentu sallallahu alayhi wa ay jama-jam ci dundam seet nañ ne fépp fu fi su xabla rek dafa wàññi fépp fu fi su balaa na lu mu wàññi am na lu mu yokk therefore saa yoo wàññee xabla salaam ngay sujjoot saa yoo yokkee baada salaam saa yoo wàññee balaa ngaa sëlmal ngay sujjoot saa yoo yokkee